ren dañoo def lancement pour euh, manam tagat ñi nga xamante ne dañ leen jël pour ñu liggéey ci administration bu Sénégal loolu nag commencé woon nañ ko daaw ñu jëloon lu teg junni ak ñaari téeméer di leen former waaye ren comme ni ngeen ko xamee dafa tombee ak mbas mi nefi te dajaloo yu bari ak mbooloo yu bari yi dañ ko aaye mais comme formation bi mënta ñàkk moo tax ñu ne nañu jël ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom yooyu aussi dañ leen xaaj def leen ñaari pàcc benn pàcc bi téeméer la ak juróom beneen pàcc bi téeméer ak ñaar fukk bu ko defee ñu mën a respecté soriante bi sol masque yi dispositif bi nga xamné ne mom la laaj ci ay gel lépp mu ngi fi bu ko défé ñu xeex aussi jangara bi pour mu baña law comme ñu dajalé ñëpp défal leen ben formation dañuy jël par groupe donc bi moy premier groupe dana am yenen groupe yi ci ci toftalu dañ leen di défal formation buñ leen défalé formation fi dañ leen wax maanaam administration nan lay liggéeyee bu ñu duggee ci administration yan jikko ak yan yan comportement lañ war a am lan lañ leen di aaye lan moo leen mën a yàqal seen liggéey ak lan mooy tax seen liggéey mucc ayib jëm kanam loolu mooy li nga xamante ne daal mooy essentiel bi nga xamante ne moom lañ leen di tàggate fii. waaw ministère yi nga xamante ne nag ñoom la ñuy former fii. ministère yi bari nañ mënuma leen lim ñoom ñëpp waaye agriculture mu ngi ci élevage pêche ak yeneen i ministère ñi nga xamante ne ñoom la ñu woowagul fii ci formation mooy ministère de la santé nga xamante ne ñooñu dañ leen soxla pour ñu nekk ci centre de santé yi poste de santé yi case de santé yi ak hôpitaux yi ngir faj ñi nga xamantene dañoo amé ay feebar umpulewu leen ne feebar bi tarna lool Wa donc euh, jël ay kat génn len fofu di len indi pour di len former sur deux semaines quinze jours te ñu wara am ñu ñu faj mu am ay urgence loolu dañ né xel dal nangu ko motax nañ len bayyi ba jëmmi jamono ñu dog leen wo pour pour former leen